حمدا كثيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا verdadeira Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, subhanallah bukratan wa asila Allahu akbar kabira Alhamdulillahi kasira wa subhanallah bukratan wa asila Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira alhamdulillahi kasira wa subhanallah bukratan wa asila Allahu akbar kabira Alhamdulillahi kasira wa subhanallah bukratan wa asila Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ولله فكرة واصلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصلا الله أكبر كبيرا والحمد كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, up. jox tabaski buñ la laajoon ne neel dogalu yàlla la bu dajeeg nangu jaamam bu dajeeg ndigalu jaamam loolu yépp yërmande yàlla daal di koy lal ma tàmbalee ci yonent yàlla ibrahim moom mi nga xam ne dem na ba magal di ñaan yàlla doom ju sell yàlla wërsëgalee ko doom ju ñuy tudd ismail yàlla ngir nattu ko ci doomam jooju mu ko may daal di koy ne sa doom ji bëgg nga rendil ma ko moom Ibrahima mu nangu dogal ba moom Ismaayila ci boppam daal di nangul ndigalu baayam yàlla daal di awale yërmandeem ñu ne fan la yàlla tegee yërmandeem mooy bi mu jëlee paaka bi bi ko teg ci loosu doomam bi muy xippi mu ngi jàkkaarloo xar alxuraan ne wa fadaynaahu bi zibhin azim ñun ñoo ko weccele ci li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy jaamu yàlla gu mag ñeenti xaaji sant foofu la jóge jibril mi nga xam ne suñu boroom nee na ko bu ibrahima reyee ismail ma far sa tuur ci àjjana mu ne alhamdulillah ibrahim bi mu tekkee bët yi yem ci ne reyul doomam mu ne alhamdulillah ismail mi nga xam ne waroowul ak ndigalu yàlla waroowul ak ndigalu baayam ne alhamdulillah kuy mañu rey ne man mënuma woon dee fu benn fii ne alhamdulillah bi lislaam ñëwee ñuy laaj contextualisation bii nga xam ne mooy tabaski bi ci njëkk lan mooy place u tabaski buñ la laajee neel sunnatun mu akkada la kan la tabaski war mu ne ala kulli man istataaha képp koo xam ne mën nga ko te attan na la ko war na la ku ko mënul te attanu la jarul lépp jarul ay bor bay am sens interdit ak di daw nit ñi wàcc na la critère de validité yi bi ci njëkk mooy salimatun min jami al uyub la ngay rey na nekk loo xam ne day mucc ci li nga xam ne mooy ay gaaf gaaf yooyu nag ci imam malik ba ca gën a rëy ñeent la li ngay rey bu mu pat li ngay rey bu mu nekk luy soox soox bu ñaaw bu mu ràgg te mu feebar ñu ne nag ci biir loolu yëpp aljazaa'u mina daani li nga xam ne mooy kuy mu foq moom ngay rey ci xar boroom xam-xam yi indi foofu ñetti wax ba ca njëkk mooy ban foq boobu mën nañ ko am ci juróom benn weer foq boobu mën nañ ko am ci juróom-ñetti weer ña des ne foq boobu mën nañ koo am ci at boo ko amul nooy def mu ne sa niu minal maasi tëng ngay jël bu góor ci béy waaye bu loolu yëpp dajee maa lay yëgal ne kuyu xar moo gën li nga xam ne mooy tappaangam tàppaanga moo gën jigéenu xar jigéenu xar moo gën kuyu béy moo gën kuyu béy kuyu béy ci boppam gën jigéenam jigéenu béy moo gën kuyu nag kuyu nag gay gën jigéenam jigéenu nag ci boppam moo gën kuyu gileem kuyu gileem daal di gën jigéenam waaye lii ma lay wax ci tabaski la bu fekkee nag ci haddu yu ba ñuy def ci màkk danga koy inversé bu keroogee gileem moo gën la ca topp mooy nag la ca topp mooy xar la ca topp mooy béy ñu ne lan moo tax yàlla inversé ko mu ne ñay aji nu ñu leen du yu fu ay gan yàlla yàlla bëgg nag ñu teeral ay ganam mu ne yàpp wi lu mu gën a bari moom laa gën a faale moo tax da nga koy inversé tabaski nag wa an yakula minha wa yatasaddaqa minha li nga rey mu leew la din ci lekk da nga ci saraxe wa yaarumu an yabia minha dañuy bañ moo xam der la moo xam weewa la moo xam béjjén ma la amul lenn luy jógee ci tabaski ñu koy jël di ko jaay lépp loo ci jaay dafa aram njariñu tabaski dina ñëw ci ñaari fànn bi ci njëkk ci àdduna bi lan yanaala allahu luhumuha wala dimaauha walakin yanaaluhu taqwa minkum yàlla nee na lii ngeen jënd mu cher loolu ray ko deret ji li muy bëri bëri man yàlla faalewu ma ko der bi li muy duuf duuf man yàlla faalewu ma ko yàpp wi li muy rafet rafet man yàlla faalewu ma ko yàlla lan nga faale yore sa alal mënoon cee jënd lu la neex dem ci lu neex waye xol sa diggante ak sa borom nga defal ko sacrifice yeg gogu nga ma yeg man yalla mom la faale alaxira fan lañu tabaski di jaxe ga jariñee yonent bi neena istashrifu dahayakum na ngeen fonku da teral sen tabaski ya rasul allah lan moo tax nga ñuy soññ di ñu ñaax di ñu puus ci ñu sonn suñu tabaski mune fa inna dahayaakum gadan matayaakum yëg nga ne li ngeen ni tabaski fi ci aduna bu yowmal xiyaamee day mel ni ange bu taxaw ci sa kanam di la jag jéggiloo si rek ak di la yóbbu àjjana bu keroogee ku la gën a baax tabaski moo lay gën a baax ange kon nañ sonn ci suñuy tabaski moom yonent bi nag non seulement c'est la référence universelle dellu la nekk la référence éternelle moom rek la ñu yàlla royloo te moom yonent bi bi muy tabaski nan la tabaski daa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi kab shayni am amlaxayni axranayni zabaahuma bi yadihi yonent bi tëbaski na ak ñaari xar yu weex tal di xar yu rafet yu sëq am ay béjjén benn bi bi mu koy rey mu ne lii de maa ngi koy reyal ahli baytu rasul di sama njaboot daal di tourné rayaat beneen xar ñu ne ko yaa rasulallah benn bi lu tax doyul nga rey beneen mu ne jamono ngi ñëw ci kanam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 والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أيها الناس أوصيكم ونفسي أن تجتهدوا في طاعة الله وطاعة رسول واعلموا أنكم ميتون وأن ساعة قد اقتربت وأن علامتها قد ظهرت ومنها كسر البنيان ومنها كسر الزنا ومنها وقوع الفتن بين أهل المغرب ومنها حيلة الحياء للنساء والسبيان ومنها ما, ما, ما, ما نلاحظه إذا اجتمع قوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا كالضفادع في كل برك ما كل واحد يتكلم في حدته لا أحد يسمع كلام أحد dellu di santaat yàlla tey gën a góorgóorlu fanu tabaski yii dañu wax ne ayaamu aklin wa shurbin wa tiibin wasinatin fanu tabaski daal bu ñu la laajee neel fan yu neex la li ko tax a neex mooy danañ ci lekk ba suur danañ ci naan lu neex ba màndi danañ ci solu ba rafet danañ ci parfumé waaye bu loolu yépp dajaloo ba jeex bul fàtte tudd yàlla waskurullah fi ayamin maadudaat dafa ne na ngeen tudd yàlla ci fan yi ñu tudd foofu boroom xam-xam yi def fa benn nuance ayaaman maaludaat bokku ak ayaaman maalumaat buñ la laajee ayaamun maalumaat mooy fukki fan yu tabaski waaye ayaaman maadudaat mooy ñetti fanu tabaski bu dee ci ñun tey la commencé suba moo ci topp ajjuma lay jeex mu ne fan yooyu bul fàtte di ci tudd yàlla war ko tudd nag di ko fàttaliku ak di ko kañ moom yàlla ndax boo xoolee diggante tabaski daaw ak ren ñaataa fi dee ña ndax yaa leen gën ndax say pexe la fi bàyyi kon tuddal yàlla di ko kañ ak di ko bakk pandémie bii di Covid 19 di natt bu ñu nangu ci yàlla yow yàlla musal na la am na ñu mu rey te gënoo leen ëppoo leen protection kon nag tuddal yàlla di ko bakk ak di ko sant ànd ak loolu yëpp di xalaat nag ne bés penc soreetul li ñuy wax axiru zaman di jamono ji nga xam ne moo mujj ay mandargam feeñ nañ ba ca njëkk mooy bun yàlla xoolal tabax yi ni mu bëree ci Dakar ak li ko ëpp boo demee Almadies ay château la ñuy def boo demee Point presque ay gratte-ciel la ñuy def waaye yonent bi waxoon na ko de vous construisez ce que vous n'habitez pas vous réunissez ce que vous ne mangez pas et vous espérez ce que vous n'atteindrez pas watam tamnuuna maa laa taskunuun wa tajma'uuna maa laa taakuluun wa takaasurtum hatta surtumul maqaabir di ngeen tabax loo leen dul dëkke te kër yi lu mu bëri bëri néeg ya lu mu bëri bëri ci benn néeg nga mën a fanaan lu toll ak sa tëraayu ba maay ngay fanaan fa yaa ayyuhal baani mahalla diyaafatin alam taalam anna al jalaau xaribun Seydi Hadji Malick nee na yow mii wut ay titre foncier di wut kër yu bëri adduna bii dañ fee jaar laxas ngir dem alaxira soreetul loo am na la doy compte bancaire yi ngay dajale waxuma la say jabar waxuma la say doom waaye say sët sax mënuñu koo lekk te alal ku koy ut nang ci teel xalaaluha xisaabun wa haramuha iqabun alal la ca sel dañ koy régler deureum par deureum lolo tax yonent yalla sulayman yenen yonent yëpp dañ ko jitu aljuma aljana lu pendant 4 décennies di 40 ans ndax sulayman lim amoon ken amu kon lo amna la doy la ca aram dañ la ci mbugal kon yalla ñu yalla xir ci lu sel kasratu zina ñaarel mandarga bi lay wonne bes penc soretul xolal moy yalla gi ni mu bëree bari naa bëri bari ba ñuy jéem a promulguer ngóor jigéen moom lay wax ne jullit bu mu doon war nga défendre avec la dernière énergie lii di góor jigéen ñi leen ngemb du ñu ay cuune ay lobbying lañ am doole am xaalis di financer boo waxee ñu ne la droit de l'homme moo tax nit ci boppam war naa def lu ko neex droit de l'homme bu yàlla taxawee droit de l'homme day dàqu alaa ya'lamu man xalaqa wa huwa latiful xabiir yàlla nee na maa bind te ma ma bindee maa xam li ma bind te bi ma xamee la ma bind maa yërëm doomu aadama bu ma la waxee ne góor ak góor waruñu sëy parce que baaxul ci ñoom bu ma la waxee ne jigéen ak jigéen waruñoo sëy man yàlla xam naa li tax kon nag ñun ñëpp nañ jël suñu responsabilité bés bu ñu ko bàyyee ba ñu voté ko dana yàq suñu société yàq suñu doom yàq suñuy sët yal nañ yàlla musal ci ngóor jigéen wuquul fitnati bayna ahlil maghrib li lay wan ne bés benn ci soreetul catastrophe naturelle yi nee na ñi dëkkee sowu jant dañuy mujj kii dee na ci accident kii dee na ci mbënd kii dee na ci leneen bu demee ba tegloo rek xamal ne bés penc soreetul Cheikh Omar Foutiyu di ñu fàttali radiyallahu taala anhu ne leen bokk na tamit ca la yonante bi waxoon ne bu ñëwee na xam ne bés ci ba soreetul xilatul xiyaa i li nisaa i wa sibyaan bu demee ba jigéen amatul kersa ci waxam amatul kersa ci solam tiital ne bés ci ñëw na waaye am na loo xam ne yàlla du ko xaar yowmal xiyam nëbb leen seen i cër ngeen génne ko ña ca ma teg leen bopp yuy metti yoo xam ne bu ñu demee ci docteur yi ñu def exploration yi gën a fees du ñu gis dara wa ma zalamuhumullah walakin kanu anfusihim yazlimun ña ca sëy doom moo leen téye ñeneen biir buy méttee leen téye yàlla nee na almaratu kullaha awratun jigéen ci boppam léppam awra la te man yàlla maa ci def sama mystère kon jigéen nëbal ma samay cër juróomeel ba di ban jamono egg na foo xam ne bu ñu dajee ñun doomu aadama yi dañuy mel ni ay mbott yu wër ndox ku nekk di ŋaax ku nekk di ŋaax ku nekk di ŋaax ba kenn du déglu moroomam loolu mooy lan jàmbat gu bari gi ñu dëkk yi courant bi cher na ndox bi cher na conjoncture bi metti na amuma liggéey di jàmbat di jàmbat ba kañ baka kullu baakin min sururi zamanihi waqal na ma yëpp kii min zulmatil xabri ñi ngi dëkk di jàmbat waaye fekkee moo waral jàmbat demal bétuwaar boo fa jógee jàllal yoof ña fa tëdd yaa leen gën un mètre matu ko naaj bi di leen lakk sañu ñoo bañ taw bi di taw seen kaw seeni bàmmeel sax na ay gàncax seeni bët bu xeeku na seen karaw ruus na seeni biir fàcc na seeni yax fanax na mu wër la ne ku jaamuwul yàlla nax nga sa bopp nañ waajal suñu bopp delu di tëjee ci ñaari aya ku ci delu aduna dula nax yonent bi bi alquran di wacc ci mom pendant 23 ans bi ko di tej lu watakuya ko wax wataqu yawman turjauna ila allah suma tuwafa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlimun bu amé bes bu jëra am bes bu raglu am bes bu xalaat moy bes bi nga ñun ñep dinañu suñu kanamu borom bu yalla dinañu régler té dut wañ kenn bu keroogee ya rasulallah luy xew kuy sant santal sa bop kuy méré mereel sa bop wa wajadu ma amilu wa wala yuzlimu rabbuka ahada mune ne bu keroogee système bi yalla di def ci contrôle c'est infaillible ku jëf-jëf ju bax aljana moy sa pay yalla nañu ko yalla defal ku jëf-jëf ju bon safara moy sa pay yalla nañ ci yalla musal di ñaan julli gi yalla bu mu nekk suñu mu juk julli pandémie bi yalla nako fi yalla jëlé delu di ñaax nit ñi ci mesure barrière ku mucc muccal nga sa moroom ku mucc muccal nga sa famille kon lépp lu ñu mën a def ba mucc yàlla nañ ci yàlla musal fatiha ñetti xul wallaahu ñaanal ko mag ñi fi nekk jóge ñëpp tëkk ca jiitu di imam Lamine Sarr dellu defaat fatiha ñetti lii raafi qurayshin fàlla xeeg naas benn peru salaatul fatih ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal fatu nasru shifa aar ñu te gën ñoo sàmm musal ñu ci yàqu ak yàqule lépp lu ñuy ut yàlla na ci yàlla jëkk lépp lu ñuy ñàkk yàlla na ci yàlla génn ci barke sayduna muhammad بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي الله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله من قدامنا بسم الله من ورائنا بسم الله من فوقنا بسم الله من تحتنا بسم الله يا أيماننا بسم الله عن شمائلنا يا سيدنا يا مولانا أعطنا يا ربي جميع ما سألناك به في سر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن فاستجب دعانا بحق التوراة والزبور والإنجيل والفرعان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أعتانا ربنا ولا تعمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاحة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا رب العالمين يا قالقا لما يشاء مما يشاء كيف يشاء ومطيا لما يشاء ومانئا لما يشاء إن لم تقدر ما نشاء فالطف بنا فيما تشاء كي لا يكون ما نشاء خلاف ما أنت تشاء اللهم انت بالدعائك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 تقبل الله رب الناس دعوتنا مما نحب به بجاه ياسين mbo lu bëri bokk na ci ay fan yi lekk di fan yi naan di defaru ak yëpp waaye li ci ëpp mooy dellu di fàttaliku yàlla di fàttaliku yàlla nag ndax jamono ji ñu toll ñun ñii di ay médecin tiit nañu

gel bi dañ koy utiliser. distanciation physique bi tamit nañ koy appliquer ci fépp fu doomu aadama di daje. bu loolu weesoo tamit tabaski gi daf ñoo war a delloo ci suñu borom. li ma ko waxee léegi nee naa la dafa nekk jaamu yàlla bu mat ndaxte weer yi ñu dajee mooy weeru aj te dafa bokk ci ñeenti weer yi nga xam ne yàlla dafa araamal ku ci aj weer wu mel noonu nag ku ci nekk da nga war di tuub di jéggale bi bale ak képp ku la tooñ nga bal ko te it koo tane waaye nag na nga tudd foo am jot na nga wasi fépp foo am jot na nga jàng ay xasida fépp foo am jot tamit na nga jàng alxuraan ngir dellu ci sa borom lii mooy li mooy jëriñu tabaski loolu weesoo nag li ma ko waxee yàpp wi lu mu bëri bëri ak xar mi lu rafet rafet yàlla nee na yëpp di rek laa ci xool waaye bu loolu jàllee tamit ñagatane seen loxo jotul seen ginnaaw nag leen ca may te nag lenn tabaski la ko dalee ca ba jëm ba ca weewa jaar ci yàpp we xar yi kenn du ko jaay mhm. dafa xaram kon dañuy dem di sant yàlla di ñaan yàlla julli gi yàlla bu mu nekk suñu mujj julli di ñaan yàlla lépp lu ñuy jaamu yàlla ko yàlla amiin suñu leen di lislaam yàlla bu nekk lislaam lépp lu ñuy am yàlla ci yàlla génn lépp lu ñuy ñàkk yàlla ci yàlla génn yàlla ñu yàlla may fekk yeneen julli te teewee ko dal ko ci barke si asalaamaaleykum maa ngi ziar waa HLM di ziar ñëpp di ziar sama imam mi di ko sant di ko gërëm li ma ciy wax du bari kii dama koy ñaanal yàlla sunu borom tabaraka wa taala yàlla mi dërëtawul yàlla ñu ko fi yàlla bàyyil yal na ñu ko fi yàlla bàyyil yal na ñu ko fi yàlla bàyyil ci barke Seyduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam li papaam doon def rek mi ngi fiy jaar yal na ko yàlla may ndam ci loolu ci barke Seydina Muhammad yàlla suturaal ko aar ko ci barke Seydina Muhammad jërëjëf